Bienvenue sur Salam Vision. yéenekaay yu bari xëy tey tiisoo ci l'hôpital Magatte Lô ci Linguère ak ñeenti liir yu tooy xepp yu fa faatu ci anam yu métti lool ci lakk ca saal ba ñu leen dencoon di liir yu matul woon laajoon aw nekkin ci couveuse ab diir observateur xëy jox kàddu ay yaay yu ànd ak naqar bokk na ca kuñ naan mun a Sow ñu ne war a toll ci ñaar fukk ci at bàyyi ko barge ji talaata la yegg si ci l'hôpital Magatte Lô doon fa muccee mu amee ci césarienne doom bu jigéen jot na ko nàmpal ajjuma ji nu génn mu ne ca samedi la dellu si ngir nàmpalaat gi fekk fa ab néew keneen Adja Sow moom mu ngi bàyyi ko ca commune bu Thiel kuñ naa nit Xadi ñi nga bawoo xojal de ca commune bu Thiel moom mooy yaayu seex yi dem ci lakk gi a saw mi ñu leen njëkka a tuddal nag ci net li ak observateur ne yaakaaram moo dem ndax ginnaaw ñetti avortement ci lu mujjoon am ki dem ci lakk gi wàllu enquête nag ngir xam fu jéey ji tukkee yéene kaay bu groupe Futurs Médias ne gendarmerie ngay déglu ñenn ci agent l'hôpital Magatte Lô collectif taxawu Jolof ci yéene kaay bi amoon yéene profité ci nganok ministre de la santé Abdoulaye Diouf ko seeni ñaxtu mujjul antu ndaje mi waaye ñoom collectif bi jëwriñ ji digg leen ak woote di appel tey ci altine ji ginnaaw bi ñu ko baaxee mémorandum ci pàttali collectif boobee ñoo fi taxawoon di sàkkuñu ñu audité yorinu hôpital Magatte Lô bu Linguère ak yeesal ñeel conseil d'administration bi ak départu directeur ba ci boppam le quotidien xëy it tiis wi ak gune yi lakk-lakk gu mitti jaare ca faatu ñeent ci liir yu tooy xepp ci libération moom ak yaay ànd ak naqar la nu fay jàng kenn ci ñoom di def seede sax mu ne moom jotul sax uufab liiram ci enquête bi ak la njëkk a feeñ ñu ne ne ay élément war a lakk yéenekaay bi ne ay taabul yu ànd ak tàngooru metti ak i lamp 60 watt ñoo nekkoon ca saal ba liir ya nekkoon danoo jot ne làmp yu tàng yooyee ñoo daal di jafal sànke ya ca kaw gune yi beneen tiis bi yoon ci Italie di doomu Sénégal buñ fa rey maam dikkoon sàmbale daaw yoo les échos ne li ko jural paatu gi mooy da doon sàkku ay kopparam ci banque bu mu ko dencoon ñu lànkal ko ko coow am kenn ci agent banque bi roose ko pistolet courant bu ko jural ginnaaw si ak cardiaque Mame Diarra Fam député diaspora bi moom nguur gi président Sall ci boppam la mere ndax dafa jàpp ne ni ñu war a toppatoo dëgg bitim réew diaspora bi demee wu ni ndax mu ne faaw ñu am diplomatie forte suñu bëggee ñu wekk doomi réew mi bitim réew consul général ba fa Italie mu ne du police du gendarmerie gu ko wekk la tribune moom la mu xëyee tey nay xibaar mooy lancement forum bi nga xamante ni moo ñeel sans emploi ñi amul xëy Bougane Gueye Dany président mouvement gëm sa bopp jógtee ko ci bi moom Bougane Gueye Dany naan la muy rëccu li dommage rek mooy Macky Sall tekkiwul dëgg càmbarul message bi ko gën a yónnee Mamadou Diop Decroix it ba tey ak la tribune njort moom ne plan d'urgence bu président Sall boobee ci échec la jëm général bu deex mel ni ku cay tontu ci Le Soleil Papa Amadou Sarr nekkoon ganu club Dakar Actu Le Soleil naan ca téeméer ak juróom-benn fukki junniy doomi Sénégal jariñu nañ ci financement DER ci valeur u 60 milliards bi ñuy toll 31 décembre 2020 njiital DER di nag leeral ci yéenekaay bu ànd ne DER dina gunge jàppalem ci koppar ci mën DER du créer emploi la ca table DER nag nay demande mu ne mu ngi toll ci juróomi téeméeri junniy demande yu laaj juróom benn téeméeri milliards ak juróom fukk ci wàllu financement wàllu politique ak mbiri démocratie ak fi ci toll Sénégal ak i acteur politique am Alioune Tine ci laas ne fenn fenn lan ci tolluwul ca nag mu ne foogoon na bu nu génnee ci fitna gëfi woon daan ci jàngee dara juboo ci lenn li waral mu ne faaw ay assises yuy faj Sénégal ni tibbantey tànk guddeeg ay jéego ci wàllu démocratie ca nag Sénégal def na ñaari alternance bu nu tolloo fi tey kon day tekki ni problème am na am na lu fàtt lu ñu war a fàttar yi ñëw nag ak la cay défi bi dëgg la Sud Quotidien xëy tey mu ne wàllu système universel gi direct la maanaam léegi wàllu gox goxaan yi képp ku cay falu ne maire ci tànneefu askan wi direct lay jugee dañu jeexale làmb ji ak réeroo xaat diggante CNG beeg promoteur yi wala kenn ci promoteur combat faw mu versé téeméer yu jël juróom fukk ya euh, cachet mbër yi ca nag bàyyi fa caution un ci boobu CNG Papa Abdou Fall ne lii moom jar na dakkal ñoom promoteurs yi seen activité yépp ca taxaw jaamarloo ak CNG bi Papa Abdou Fall la mu gis mooy bira seen yoon wu mu jël dafa juum hôpitalu Linguère ba day waaw dafa lakk ba doon doomu daal laa la wax allahu akbar lu tolloo ñeenti liir di ay bébé daal di cay dee la ilaha illallah dama ne la ca service su néonatologie libération yée ne kaa ne ay waay xale yi la day ni seenu dundu jeexee miti na lool dama ne day la ñu faatu laa la wax ca hôpital Magatte Lô ca diwaanu Linguère googee ñaar ca ñoom day waaw ña nga ca diggante dund dee maar day tali ya ilaha illallah ñaari seex yi day dama ne la ca bis ba la ñu waroon a génn allahu akbar am na ci soo xam ne am na ca bébé day waaw nee na jotumaa gis sax sama doom musiba mbaa ba ko mbébé waat seen kaw yéeni kaa gi ne dama ne la gis nga lakk googe ci climatiseur kon la jugee allahu akbar te élément yi njëkkiy day enquête gendarmerie waaw jàppale ne talaatay ci suba ji dana commencé leer li leer ba leer source a nee na premier élément yi kay daal dinay génn nag laa wax ah waaw parce que gis nga bébé yooyee matu ñu woon de ay prématuré la ñu woon ci seen couveuse allahu akbar waaye yi day am nag njort gu nga xam ne ñoom ñoo nekk ca lamp yi ya baax mousquetaire ya waaw moo jur kon giraawaali ga gis nga jamono joojee nga xam ne sénégalais nag ñu ngi dund kon giraawaali ak mi ci dëgg-dëgg sax waaw Macky Sall day ca nag gone yi lée am xëy di liggéey terminier rek ane gis nga ndaw yi nga xam ne dañoo yor kon ay lijaasa jeune diplômé yi waaw marchand ambulant yi teer yi menuisier yi jakartamaan yi ak ñeneen ak ñeneen day loolee Macky Sall kon defar di plan bi ngir wutal la ilaha moo xam ne kon bugaan ngay dañu doon na ko amal yi nga xam ne kon amuñu liggéey di ay jeunes chômeurs ah. ak ñi nga xam ne dañoo nekk ci secteur informel ba day ñoom nag dellu siwaat nañu ci toroxtaangeeg coono bi nga xam ne kon moom la ñuy dund ci mim réew benn ci marchand ambulant yi day nee na li ñu bëgg xamal kilifa daal mooy gis nga marchand ambulant yi bu ñu leen wutalul fu ñu toog place bu dëju waaw bu ñu jógee ci kaw tali bi laa la wax maar di tali waaw waaw waaye xëyu rek suñu kilifa yi nekk fi naan dañuy séddale ay milliards fii di séddale ay milliards fee te yow ca jamono joojee sénégalais yaa nga torox ba ni tot tot la wax sonn sonn di souffrir bugaan ngay dani day waaw nee na ndeysaan Macky Sall daal xam naa ne cadgu na ko c'est dommage parce que message bi moom la ko xale yi lancé ni lée Macky Sall ba léegi ni la jëliwul laa lay wax ni lan la ko xale yi wax déedéet bugaan ngay tani njiital gëm bopp waaw nee gis nga yéen xale yéen lay waxal nguur gi xaar ci ñoom dara laa wax xanaa xanaa encadrement rek Mamadou Diop Decroix ci 24 heures waaw nee na am xëy sax vraiment ay emploi dañ ko Macky Sall ba barki dee mu ca jëm ñaajo googee ah le directeur de l'emploi day indi na ci ay gindi de ndaxte nee na ñaari junni ci ay ndaw at bu ne ñooy ñëw di wut liggéey ci marché bi waaw Baba Amadou Sarr directeur général bu DER ci la solo yéene kaay waaw nee na ñun day danañu jot lu ëpp juróomi téeméeri junni ci ay demande yoo xam ne boo ko xaymaa ci xaalis day toll na ci juróom benn téeméer ak juróom fukki milliards laa ilaaha illallaah exclusive yéene kaay ne rek laa la wax loolu la wax ndaw ya saara mbund xamal na gars xale yi ne am na ci ay kilifa yu fort yu bëggoon lii waaye dama bañ ba tëdd ca suuf laa la wax réew mi quotidien ne politique xale yi day ñi fi premier ministre waaw waa ñi est-ce wax jar door sa doo askan wi ci boppam sax est-ce que jox ñii seeni wax ñii crédibilité muy Idrissa Seck Abdoul Mbaye ci biir vous êtes comptable du régime de Macky ñoom ñi fi premier ministre day kun ci dàq ci gouvernement Sénégal doxalee bagaas yi amaan xam-xam ca saasa yéene kaay fa jógee fay bi ne Aminata Touré mi lée di mimi waa moom lii muy wax nii ci wutum xëyum gone lan moo tax bi mu nekkee premier ministre wala mu nekk président conseil lan moo tax defu looloo ma jaaxal Abdoul Mbaye mi lée nga xam ne dañu koo dàq ci gouvernement waaw lan moo tax babam te nekkee defu waa tey nag muy yuuxu fépp ne jafe-jafe bi nga xam ne sénégalais yi ngi koy dund moom Abdoul Mbaye ma soow moom Idi soow moomee soow mu am suukar la wala soow mu saf safakaani la looloo jara laaj na parce que yow Idrissa Seck day da doon la virulent di ko bëgg a xas waaye mujj dem dugg ca gouvernement bi la te moom Idrissa moom soow waaw moo doon tuumaal Macky Sall mburu naan Macky mën na waaye astut la mën Macky pa mais pa yéene kaa gi xoolal ma kàddu yi dem bu a ak taxawaayu soow mi ne tey waaye yow suñu politiciens yi est ay nit la ñu wax waxee toroxal seen bopp de defu leen dara laas Alioune Tine wax na li nee gis nga dialogue bi daa baax te gis nga réew mi nekk ni ma ngay daanu de ma ngay basculé wu de maar day taali alluntin yemu ca nee waxtaan ba ñàkk jubóo am ci wàllum élection yi lée ne parti politique yëpp dañoo daanu man alluntin nag li may xelal Ousmane Sonko mi mooy mu dem tribunal na dem justice Barthélémy Dias day ci 24 heures waaw daal dinay tontu Macky Sall moomee nga xam ne mi ngi naan li fi amoon dootu fi a amaat de déedéet parce que waaye Khalifa Sall ji day <coughs> ci libération yéene kay nee gis nga Macky Sall mi le bis bu ës ësloo dëgër bopp ne du organiser élection yi lée waaw dama ne dana dund lu gën a tar li fi xewoon laa la wax parce gis nga Macky Sall nag li mu mooy ci nguuram gi lée dootu ci organiser ay élection te loolee mënul ne boobu benn ñaar Macky Sall fi mu nekk nii dafa te wàllum intimidation bëggal leen lépp ci wàllum téeréer tiitalaate napaate xëpp nit ñi a tey ci Dakar Times waaw nee na Macky Sall su xaroon Dakaaru Njaay ba muy juróom benn laa la wax du am dara te gis nga mbele mbele yi ñi nga xam ne ay boobaar lër lañ wax rek waaye waaye nañ jox réew mi liggéeykat yi man Bougane Gueye Dany day am jàllo picc wala Serigne Mbu wala Mbaye Gueye wala Mbaye Sarr ni président de la République moo ma gënal ay mbele mbele ndax ñooñu luñ bon bon liggéey nañ dara ci réew mi nit ñi te ci bëgg waa M2D de moom la joxoon sëriñ Mountakha Mbacké xalif généralu Muridiyya dootoo ko defati Faly Seck day président mouvement ADF ca Ross Béthio ci exclusif waaw nee na gox goxaan yi daal yaa nga fa de yu ñu war a kattanal dooleel ko rek jox fulaak fayda dem naa ca football ba Pape Moussa Traoré ci tribune sport nee na quatrième mandat no comment Augustin bañ ko waaw dane woon day defaat kon beneen mandat quatrième mandat ci mim réew mukk ci àddina waaye léegi daal boo ko laajee mu ne la no comment tey waay mandat de trop yi mandat yi lee ëpp na di Augustin Senghor quatrième mandat ayaa bi mang satala cruz <laughs> yow Augustin ak Béhanzin yow ñuy bañ troisième mandat ngay laal quatrième waaye coow li nag ak lu muy bari bari bari bari bari bari bari du tax ñu fàtte pétrole bi de déedéet parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fi tere rek boo paree ma ne la alaaji Bienvenue sur Salam Vision.